mu ngi isso é ce que grève de faim bi c'est-à-dire le moment ko peut être ñu bëri yaakaaroon que ni tey ji leen gënoon soxla ki nga xam ne Ousmane Sonko peut être dafa dafa doon ben arme bo xam tam da utiliser peut être pour dénoncer li nga xam ne l'injustice ana si ban fànn na koy daal analyser parce que aujourd'hui on a noté un silence assourdissant sànq sax commentaire na li nga xam ne moo le silence bi la pourquoi askan wi daal di noppi alors grève de faim bu nga xam ne itam et que du moom kese euh, pas mal ay détenu jaar neen fa que sont ñoom Pape étant d'autres aujourd'hui euh, Bassirou Diomaye Faye ak Pape Abdoulaye Touré ñu ngi si donte gànk na leen li nga xam grève de fin bi suis. Sy euh, grève de faim est-ce que solution peut-être pour daal au war euh, combattre lu Waouh. mel. waaw man damay actuellement mun am grève de faim bon ñu tout mun na mu guerre de communication mun na mu man du ma ndax wóolu ma lekk yi pour ma lekk day démé ni day démé day démé ñu ne ko yow prisonnier comme tout prisonnier amo lo fiy teg. Hmm. da nga wax ji mu ne bo leen ko deful du ma

à question politique réponse politique actuellement dañ ko jàpp ci côté politique. Hmm. da nga wax ji esama ba ñëpp gis ko ñoo tooñ nañ ko ay nitam ñoo war a am fulla tontu politique comme léegi dissout nañ parti bi kon léegi amatu réponse politique. xam na pour man dafa war a léegi nag bàyyi boppam yoon waxoon lu lan la ko yoon di jox. Hmm. tout en sachant que léegi actuellement comme comme comme tu as dit Sénégal.

am na ci loo xamante ne la dompaté légui da nga wara fayu légui ñu dompat nga né non ci tank la ma dompat mu dompat la num mu ci ndig nga né ci ndig mu hmm. dompat la ci dënn léegi nag loqati sa bët nga nga taxaw fi né actuellement fofu fofu la toll ils ont vu venir la chose au lieu ñu répondre hmm. ñom ñu tontu ñu ba yëf yi nu mu tudd kii actuellement li ma leen di conseil du fii la leen koy conseiller

boobee aussi bu atuman Diagne Pastef waaye tam bu ki nga xam que modi euh, justement mm, euh, bëri na li nga xam que modi di cas de fuite yi nga xam de plus en plus ñu koy daal di je veux dire li nga xam que modi di sarix topp alors euh, aujourd'hui gis na li nga xam que modi di départ yi ñi ñi ngi dem vers d'autres pays pour daal di fay dund parce que japp nañ nak ñom ñep ngi ci sursis jëm si li nga xam que modi track. bi nga xam tam itam ñu koy di amal wa Pastef

Les qui ont téléphone toujours parti ils sont en train d'enfreindre la loi donc vous wax parti parce que dans le principe dañu liquider les biens du parti l'actif matériel comme l'actif immatériel. L'actif hmm. immatériel c'est le que leen hmm. donc la réponse c'est quoi mais même mënuñ leen dem jàpp ne la euh, def nañu sous-écoute dégg nañu mu tudd yaa ngi yaa ngi ci doon wax. Hmm. léegi nag comme xam nañu loolu mënuñ leen ko jiñ même sax bu nekkul dëgg mais ils sont obligés nu mu tudd de fuir man li ma leen di conseiller les pontes. donc ils ont compris cela. ils ont compris cela et ils ont compris ça un peu un peu tard mooy li may wax rek ñàkk ñàkk mag nekk mag nekk mag immaturité politique. mais est-ce que du fuir tamit nag bay neneen euh, fu ma ni li nga xam ne moo di la fuite des responsabilités. Non, Parce que le pourquoi Ousmane Sonko aujourd'hui a été emprisonné, nous avons euh, euh, des départs un peu partout. Donc, euh, mm-hmm. c'est leur façon de gérer le combat. Mm-hmm. Mm -hmm. Mais PAI, il y a une fois le PAI, le Parti africain de l'indépendance, c'est Majmoud Diop, c'est membre tête de Bobo. Mais quand on est en situation, mais mm -hmm. dans la clandestinité, personne ne sait personne. Nous sommes dans le principe. Quand on est parti, quand on acte acté, on est en train de se faire, on est mais loolu comprendre mais parti bi tamit baa du tas définitivement. non euh, jàpp ngeen dina euh, dina war a ñëwaat. non bu fekkee ne day ñëwaat dañuy def recours jaarale ko nu mu tudd fañ ko war a jaarale. non ma pour ñu defaa benn mouvement wala kon parti bi relevé waat. soo ko non dina mën a nekk mais ci kaw leen bu fekkee ne état bi permettre na leen ko.

ci lañu wara jël seen devant dugg dans la clandestinité. Mm. mais taxaw ni dañ leen di jàpp par force. fi nekk actuellement li ma wax rek ils sont immatures politiquement donc ils sont en train de tomber dans le piège de euh, de ce de ce gouvernement. donc le président Macky a gagné la première manche. mais toutes les manches. alors euh, ba tey si wàllu wun mel est ce que tey Pastef wala am plan B. jot na wala xam nga Pastef mënul am plan B xamul tax. Mm. ndax amatul léegi da nga naan. ñoom est-ce que war nañu mën a am plan B. maanaam seen biir expatrié waaw hmm. ko am xam nga maintenant euh, kan la ñuy jox nu mu tudd yëf yi. Hmm. boo xoolee configuration bi kan la ñuy war a jox yëf yi Sonko ku mu ko jox nu mu tudd mu war ko xam nga te avant tamit aussi gis nañu relation. mu war ko waaye si ku mu ko jox mu war ko xam nga du ko jox Bougane xam nga.

bonne réaction est-ce que euh, le système pouvait retrouver l'antisystème man li may wax Bart n'a jamais été antisystème Bart a toujours été un homme du système ok papa Bart ak Macky beus bu nek ñuy bu ñu ba yow nga dina jël ndax na dal ci hmm. man je gis nga même ba ci reconfiguration PDS xam nga hmm. lepp ba ci Barth ni mu ni mu def ni hmm. fi lee une fois dit à quelqu'un dinaa Barth fële li mujjé té Barth li ma ko moy c'est un acteur politique bo xamanténi ne mën na saisir ay occasion nandité la xam nga am na ay nit xam nga itam fan la yem Sacré Cœur mais li ci des yëpp ci biir nandité mun na nandité nu mu tudd ba xëy ñu né Barth moy président de la du Sénégal oui parce qu'il sait saisir les occasions. est-ce que Bart ñi di que ko voté la est-ce que. y euh, a ñàkkul crédibilité am. est-ce que Ami Cham yemul rek si mairie bu Dakar. waaju baax gis nga politique gis nga politique. il faut jamais dire jamais. ok te politique du wasin du ëmb day xëy wasin. Hmm. te Barth pour man moo ngi tegu ci trajectoire bu baax. fi nekk il est en train. trahir non pas mais aujourd'hui non aujourd'hui mais aujourd'hui mais aujourd'hui nit ñi ñoo koy trahison mais xam nga waaw waaw waaw mën sax mais aujourd'hui quand même il a perdu sa crédibilité non non non non non ñun ñoo koy ñun ñun ñoo koy wax mais xam nga sénégalais ma wax la benn affaire pour nga crédibilité yoral xaalis loxo ci poos yoral xaalis loxo ci euh, poos mais su ma loolu est-ce que jàppoon ni Sonko dafa changer loolu noonu lan non système c'est un xaalis ak loxo ci poos non loolu sénégalais moko sénégalais moko ko moom dans dans l'ADN parce que ñun nous sommes une société il y a Malick Ndiaye le professeur Malick Ndiaye qui avait écrit nous mu un livre xam nga euh, nous sommes dans une société ceddoo loo wax a wax a wax ñu ne ceddoo lañu lu ma ci am loo ma ci defal xam nga loo xamante ne waroo ko ci am waroo ko ci def xam nga pour dire que ne am na ci dynamique boo xam ne moom il sait saisir les occasions il est en train de les saisir. parce que fi mu occasion la woon Ousmane Sonko. fi mu toll ko pour pour pour mën a doonoon. mais le levier la def Ousmane Sonko Ousmane Sonko n'a pas compris moom en tant qu'acteur politique dafa nax Ousmane Sonko ba yëg. ba muy ànd ak Sonko àndul ak moom parce que dafa gëm Sonko non c'est un acteur politique. mu xam ne doomu ndeyam la ah? neen doomu ndeyam la. non non politique xoolal politique la wax doomu ndey tay suba mu yara jaasi tuddi yow politique ay intérêt comme ni ma la en ci France y' a pas d'ami y' a des intérêts en politique il y' a pas d'ami y' a que des intérêts aussi Alors, dernier exemple sur le plan de développement, aussi par rapport à la situation du pays actuel, là où on parle de la charte de la vie avec l'augmentation euh, de l'Union et tant d'autres. Tout à l'heure, le président Mexal a mon programme